fi daa am benn choc bu fi am benn accident benn waay damay toog di gis action bi quoi damaa toog fii si sànja bi nii di ko xool quoi mu ñëw mu jéggi mel na kuy jéggi affaire bi yéex quoi mel ne kuy jéggi tane bi di ñëw ma yaakaar ne day yéeg moom day arrêté booyam tane bi sax mu tax mu mu ak mu tëdd si digg si digg yaay bi tëdd daa tëdd njaaxaanaay nii bi mu tëddee njaaxaanaay tane bi di ko yomb ay wagon wagon bi bopp bu njëkk bi moo ko yomb ay 10 wagon yomb nañ ko bu mais bu mujj bi day am ay am ay kii ay weñ yu ne si suuf quoi boobu moo mbëkk poisson sowu da daa tëdd nii jaaxaanaa nii bopp bopp bi bopp bi bopp bu jiitu bi ah mënu ma ko conseillé ko wér tax ku góor la xale bu góor la moo mag quoi ah je ne sais pas xaw ma turam damaa wan ginnaaw man ginnaaw bi ma wanee ginnaaw rek dem Sénégal yaa ko gis action bi yow yaa gis quoi mais affaire bi man damaa yéeme dafa yé affaire bu yéeme sax